Moustapha ñu gën maa xam ci Kulu ma nekk bassiste waa Flash bokk ci membre fondateur de ce group euh, waa Flash nag groupe bu Thiès la boo xam ni bon kenn dootu ko présenté quoi ñoom ñoo créé Palais des Arts mu nekk euh, benn lieu boo xam d'expression artistique et culturelle pour euh, pour la musique et les autres arts quoi par exemple la peinture les arts visuels et tout ça quoi on avait initié par exemple euh, benn benn projet boo xam ni njukkal la njukkal delloo njukkal maanaam ñi ñuy delloo njukkal mooy ñi nga xam ni dañoo am lu ñu œuvré ci musique sénégalaise te boobaak léegi euh, ñun daaw def nañ ko première édition bi ñu ngi ko jagleeloon Lamine Faye ren ñu koy dàbbaliwaat ñi ñu ci tànn mooy Jean-Philippe Riquel nga xam ni c'est un artiste de renom international ñi nga xam ni il a participé ci euh, ñun déjà d'abord ci ñun waa Flash nga xam ni il nous a beaucoup influencé sur la sur le plan musical et il a beaucoup contribué à l'évolution de nos de notre de nos de notre de nos carrières. joué na joué naag euh, joué naag ay musiciens yu bari ki ci demee ni Youssou Ndour Salif Keita bi nga xam ni Mali la nekk ak waa Xalam Xalam 2 bi nga xam ni Souleymane Faye fa la daan woy fa la fa lay woyee. léegi euh, delloo njukkal bi mooy li mu li mu li mu li mu def ci euh, musique def ko ci ñun def ko ci génération yu bari yi nga xam ñun ñoo maase influence bu mag a mag bu mu ci bu mu ci apporté quoi ba pare nekk koo xam ne ku talentueux la te en général fii Sénégal dañuy jël woykat yi rek la ñuy xam am mais duñu xam ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw léegi nag loolu solo boobu moo tax ñu ñuy jël instrumentiste si et de leur vivant maanaam bi ñuy dund ñu jéem leen a sargal njukkal leen bu baax a baax ki ci tegu muy Michael Souma bi nga xam ni yaatal na musique ci Sénégal ñun suñu génération waa missal waa xalaat waa ceddo tout le monde musiciens yi nga xam ne ñun ñoo bokk génération yépp dafa participer ci à travers par exemple Dakar FM bi nga xam ne daan organiser da daan def ay émissions yoo xam ni ñun dañ ci daan déglu mu mu ciy participer wute utaale benn par exemple émission boo xam mu ngi tuddoon à la découverte des talents nouveaux ñun ci la ñu génnee waa misaal ak group yi ma cité yi ma wax fi sànq ñun ñëpp ci la génne donc Mika Souma nekk koo xam ne nii ku am solo la ci musique évolution musicale euh, musique Sénégal fii nii ci doxil doxalin weeg ci euh, diffusion beeg lépp daal moom daf ci participer quoi da daan ñëw ba Thiès fii di ñu rendre visite di xool ci lu ñu nekk di xool nan la ñu mën a jàppale ak et tout ça donc loolu aussi tax na ñu koy rendre euh, ñu koy rendre euh, njukkal bii ñu koy delloo njukkal bi te xam nga njukkal moom boo koy def da nga koy def koo xam ne nii ko ku ko jara ku ko ku ko jara ku ko jara jox la ko ñaar ñooñu loolu moo tax ñu tànn leen te ñun aussi sunu suñu credo moo doon mooy ñu fexe ba nga xam ni ñun ñu nekk link bi ñu nekk par exemple liy lëkkale génération yi ñoom Michael Souma ak ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu fexe ba nga xam ni ñi ñiy ñëw dinañ xam ñi fi nekkoon ak lan lañ fi def te loolu dafa am solo ci suñu suñu suñu vision quoi parce que ñu ni suñu gis-gis te suñu gis-gis moo doon waa Flash seen gis-gis moo doon à partir de Thiès ñu ñu wër àdduna bi xamal xamal par exemple Thiès àdduna bi te loolu ñun def nañ ko mais dañu bëgg ñeneen yeneen génération yi aussi gën koo yaatal quoi njukkal bi nag instrumentistes yi lañ ci gën a taamu ñi nga xam ni ñu ngi dund waaw ñoom lañ ci gën a taamu moo tax euh, ñun ñu ñu organiser wu le directeur du centre culturel bi nga xam ni waa monsieur mbay nga xam ni il n'a ménagé aucun effort depuis bi ñu bi mu fi ñëwee ba léegi il soutient l'art quoi la culture il est là pour pour ça quoi franchement ñëpp lay jox nopp ba ngi jox nopp ñëpp jos mii nga xam ne moom c'est un artiste plasticien parce que ñun à Thiès on est on est on est on est on est en connexion ñu ñu ngi ñu ngi dañuy dañuy jokkalante bis bu nekk dañuy jokkalante di xamante ku nekk lu lu lu waay nekk ñeneen ñi dañ ciy jàpp. donc loolu lu lu ama ama solo la. programme bi nag ñu ngi ko tëral tërale nii ci mois de décembre bu lañ koy def juróom-ñaari fan muy alxamis juróom-ñaari fan ci mois de décembre ak ajjuma juróom-ñetti fan ci weeru décembre bi. bis bu njëkk bi dañuy def master class dinañ def master class ak euh, Jean Philippe Riquel bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu jël comme mu nekk euh, ki ñuy dellu ki ñuy jox njukkal dina def master class boo déggee master class nag moom comme que xam nga nii moom daf virtuose clavier la dafay jouer piano te daf ko mën lool dañu bëggoon xale yi nekk Thiès te intéressé te te clavier intéressé leen même bu leen clavier intéressé bu leen musique intéressé rek ñu ñëw fekke loolu nga xam ni expérience lay nekk ci ñoom ni ñu gis benn nit boo xam ne ni niveau bi mu am mondial la comme ça loolu dina leen gën a dina leen gën a jox courage dina leen gën a jox euh, dina leen jox gën a jox euh, jox euh, xam-xam dina leen gën a jox xam-xam dina gën a yokk seen seen bëgg-bëgg aussi ci ci li ñuy def jour loolu la njëkk a def ci jour bi beneen beneen programme bi ci jour bi mooy ñu def émission yi nga xam ne Mika Souma daan ko def ci suñu jamono ñu indiwaat ko tey fexe ba ñu indi mécanisme fii mu am débat am waxtaan ci ci par exemple évolution musique bi et cetera et cetera waxtaan ci euh, évolution musique bi loolu mooy njëkk premier jour bi deuxième jour bi dina benn soirée boo xam ne ni waa Palais des Arts dañ koy organiser euh, njukkal da koy organiser pour jeunes yi nga xam ne dañoo nekk palais des arts di fi di fi liggéey parce que umpalewu leen que ni pale des arts day day liggéey 7 jours sur 7 te bis bu nekk dina am artiste buy joué te loolu dafa am solo artiste bu ci nekk buy joué dina am par exemple au minimum 10 personnes yoo xam ne ñoom lay àndal imaginez la semaine c'est 7 jours 7 jours fois 10 personnes c'est 70 personnes par semaine yoo xam ne fii la ñuy jël seen gagne-pain fii la ñuy liggéeyee fii lañ leen di xamee te artistes yooyu kenn mus cee génn album donc nit ñi xam nañ leen te génne guñu album donc défi bi mooy fexe ba ñooñu nit ñi xam leen fexe ba ñooñu nit ñi euh, à travers à travers activités yi ñu mën nit ñi nit ñi xam leen léegi ñooñu lu ñu jël lépp mooy les talents du palais muy ñoom Sidika ñoom Sifa ñoom euh, Abdou euh, Abdou Fall Thiacho Walide Bas Petit Bas ñoom ñëpp ñoom Pambay ñoom ñëpp ñi nga xam ne jaar nañu palais des arts organiser benn benn soirée boo xam ne ñoom ñëpp ku ci nekk da ngay ñëw jouer benn morceau boo xam ne nii wala nga dangay ñëw participer ci soirée bi en dehors de cela y a Lamine Sissoko euh, nga xam ni c'est un c'est de la de la de la kora bu nekk bu bu bu nekk buy évoluer en Europe moom tam dina ci soirée bi en dehors de ça aussi dina am dina am euh, Riquel day participer ci ay morceaux yoo xam ne da ko jouer ak Youssou Ndour yi mu jouer saalif kayta yi mu joue kook euh, xalam yoo xam ni instrumentistes yi nekk palais nga xam ne ay boy la ñu ñu leen ñu nekk euh, pale di liggéey ñooñu dañuy reprendre morceaux yooyu moom mu ñëw participer ci morceaux yooyu comme par exemple Birima bu Youssou Ndour ak euh, kono bi bu Salif Keita ak nitu tey bu bu bu xalam et cetera morceaux yooyu ñu reprendre ko nga xam ne nit ñi xam nañ leen morceaux yooyu nañ fexe ba xale yi reprendre ko ak rituel nga xam ni day am solo day am solo trop trop trop donc soirée bu mel noonu ak duuru ko y aura aussi la présence de de de de de de de l'ex guitariste du du super jamono mais Doudou Konaare nga xam ni moom kenn dootu ko présenté Sénégal ko Konaare moom ci guitare moom vraiment il est excellent moom tamit dina participer walla ci soirée boobu te soirée boobu dañ koy def pour que nit ñi on demande à toute la population thiessoise toute la population sénégalaise et particulièrement la population thiessoise ñu ñëw les autorités les les les les les mélomanes tout le monde ñëw euh, jàpp ci affaire bi nga xam ni deuxième édition bi day jàll ñu xalaat troisième édition bi xool nan lañ koy defee. bilan bi extrêmement positif parce que parce que xam nga fii nii en général bu ñu nee réussir na la nee naa la eh, ñi am nañ xaalis nangam nangam alors que réussite boobu ñun bëgguñu ko ñu du loolu sax moo ñu moo ñu animé quoi mais fexe ba nit ñi xam kii li mu fi def. ak nan la ko nit ñi gisee alors que ba pare moom tamit moom mi nga xam ne moom la ñuy delloo njukkal moo xam ne nit ñi yëg nañ ko quoi bi ñu ko defee daaw bi ñu demee seeti euh, Lamine Faye il était tellement content il était tellement content parce que moom xalaatoon na ni gars yi fàtte nañ ko parce que fii xam nga boo paree rek gars yi dañuy mel dañuy dañuy suul sa yëf nekk ci keneen léegi nag le fait que nga rappelé waat ko nit ñi ñëw ay frère am ñëw ay ay ay musiciens yi nga xam daf leen formé ñoom Fallou Dieng daaw ñu ngi fi woon ñoom xam nga ñu ci bëri ñëw participer ci affaire bi loolu daf koy joxaat beneen affaire boo xam ne ni dina ni man rëccu moom lu ma doon nekk musicien rëccu moom li ma doon par exemple ree sama bopp ci ci ci lii nii quoi donc delloo njukkal boobu ñu ko delloo njukkal aspect boobu daf ci am solo non seulement aspect boobu daf ci am solo ba pare daaw si les mêmes gosses yi nga xam ni ñoom ñooy ñooy reprendre morceau yi ñoom ñoo joué woon ay morceaux Souleymane Faye euh, Lamine Faye yi nga xam ne def na ko Lemzo Jamono def na ko ak Youssou Ndour et ak yenn morceaux yoo xam ni travaillé na ci booy reprendre ko mu nekk euh, ay morceaux yu baax yoo xam ne ni yu neex yoo xam ne ni kenn dootu ko fa fàtte mais moom aussi day permettre xale yooyu ñu reprendre euh, bu ñu reprendre morceaux yooyu ñu am ci expérience boo xam ne ni bu jéggi dayoo quoi parce que ñe techniquement ils sont excellents donc boo boo demee ba boo xasee ba mën li ñuy joué rek mooy yow yaa ngi ci yoon bi donc loolu dafa am solo. man maa ngi tudd Cheikhou Ba. mais ñu gën ma xam ci Toto nekk euh, membre fondateur du groupe Wa Flash aussi nekk le responsable du pare des arts donc euh, aussi euh, ci njukkal bi aussi bokk ci comité d' organisation njukkal bi donc njukkal bi cette anne comme nu ko ku waxee rek. bon choix yu ñu jël muy Michael Souma euh, je pense bien que kenn gënu ko mérité euh, njukkal parce que ñun au fait waa Flash dafa am lu mu bëre loo xam ne Michael daf ko def si ñun ak suñu génération surtout la génération des années 90 donc euh, suñ demee ba nit ñu xam ne sur le plan national international lu bëre c'est grace à lui parce que maa ngi fàttaliku première maquette bu ñu koy envoyé waa Flash. et puis euh, buñ ko yóbboo présenté ko rek il est vraiment tombé mu sous le charme de de la maquette donc ci fala pour man carrière waa Flash foofu la commencé si Michael Souma mu jox ñu courage di ñu boole ak yenn artistes yeeg yenn yenn producteurs yi et aussi maa ngi fàttaliku ay daara jeeg groupe yu bëre yu mag yoo xam ni dañ doon bokk plateau fa lañu commencé kenn xamu leen woon donc pour man kooku euh, jar na delloo njukkal beneen bi mooy euh, Jean-Philippe Requel moom dafa nekk particularité mooy dafa nekk tubaab boo xam ni lu muy jouer c'est comme un africain suñu leen waxee ni par exemple Birama bu Youssou Ndour guitare boobu son guitare bi di euh, kii di def Jimi Mbaye moom moo ko jouer ñu bëre dañuy defe ne guitare moo ko joué mais moom moo ko joué ci euh, ci clavier donc moom day explorer vraiment les les instruments traditionnels africains même kora su ko joué am na groupe yu bëri yoo xam da ngay dégg defe ne son kora alors que c'est lui moo ko joué donc ku mel noonu nekk français dem ba épouser vraiment la culture africaine def ko ci boppam kooku je pense bien que ni euh, jar nañu delloo ko njukkal et puis aussi du point de vue euh, professionnel defe naa ni xale yi daañu jàng lu bëri bëri bëri ci moom et puis présence am aussi jour master class bi defe naa ni euh, loolu moom defe naa c'est une chance boo xam ne clave bépp claviste wax ma la sax xale même mag mmh. ah dañ ciy jëriñu parce que kooku c'est une dimension international amul musicien bu mu géewulul ci àdduna bi muy musicien américain ak français ak ñëpp donc euh, loolu laa bëggoon am lu ma dolli tuuti par rapport ak euh, les deux choix ju suis Maktar mbay je suis animateur culturel et chef de service régional de la culture au niveau de Thiès. man membre laa ci comité d'organisation euh, directeur centre culturel régional la mais membre laa ci comité d'organisation parce que li may wax chaque jour mooy lu baax soo gisee ñu koy def euh, soo ci mënee bokk bokk ci parce que lu baax la su fekkee loolu moo la tax a jóg yow parce que même soo bëggee def benn affaire euh, benn nit di ko def yow kontaanal parce que loolu nga bëggoon daf su fekkee rek euh, njeextal ba moo la yëkkati moo tax ma ñëw bokk ak ñoom ñoom aussi ñu nekk ay nit yoo xam ni bi ma ñëwee Thiès dañ ma ubbil porte yëpp nangu ma euh, teeru euh, di ma accompagner également si ay idées parce que si ay idées moo tax lu xew rek damay def tout pour ñëw teew ñëw teew pour xam li fi xem xam li fi xew ñëw teew également pour xam jafe-jafe yu acteur culturels yi ak musiciens yi ak artistes yi di dund donc euh, mu nekk euh, benn euh, initiative boo xam ni dañ leen war a gunge dañ leen war a jàppale parce que mm, njukkal comme li ñu wax dañuy xool artistes yi nga xam ni xarañ nañ ci seen domaine mais aussi am na lu bëri lu ñu apporté ci musique sénégalaise mu ku mel ni Michael Souma maa ngi rappelé wu temps yi nekkee jeune euh, FM euh, inter samedi relax ak euh, génération 3R surtout parce que bon boobu hip hop mu ngi waaj a dund gars yi dañuy wax mais première émission hip hop Michael Souma moo ko doon def avec génération 3R rap reggae et raga donc mu nekkoon yoo xam ni dafa contribuer bu baax si le fait que yenn musiciens yi xam lañ et que c'est rare parfois ngay gis ay animateurs yu gëm les jeunes talents wala les talents cachés donc loolu ñu xamee ko ci loolu genre Philippe Riquel comme ñoom liñ ko waxee mu nekk musicien boo xam ni certes tubaab la mais soo ko dégg muy jouer soo ko gisulee da nga naan africain wala sénégalais mooy jouer parce que dafa miin dafa am solo ci musique nga am loxo boo xam ni foo jouer ñu xam ni kii am na benn touche africaine donc kooku mooy Jean-Philippe Riquel di inspirer aussi ay jeunes musiciens yu bëri au Sénégal mm. donc kooku mel noonu war nañ ko mën a delloo njukkal moo tax choix bi ren porté si ñaari monument yooyu pour man monument de la musique sénégalaise et de la culture en général donc loolu lépp mu reposé wu ci benn projet boo xam ni bon Jos wax na ko euh, ministère réagiragul peut-être y un problème de suivi administratif parce que euh, Toto mu ngi naan ma lettre bi ñu ngi koy doog a enregistré te déposé nañ ko il y un mois mais on va continuer de suivre parce que mën nañu wax ni le le dossier est en étude loolu mën nañ ko wax peut-être il n'est pas trop tard que le ministère réagisse on va continuer de suivre pour xam dossier bi lan lañ mujjee pour ñu jàpp ci projet bii nga xam ni dañ ci war a jàpp parce que c'est un projet boo xam ni am na solo amal na solo ñi ci nekk amal na solo ñi nga xam ni si ñoom la ñuy porter suñu choix pour delloo leen njukkal. non en fait damay préciser nekkuma conseil culturel. benn maire conseil technique quoi je veux dire. conseil suis un service technique. mais xam nga dama koy préciser am na ay maires yoo xam ni dem nañ wuti ay conseil culturel. dans les normes le services techniques dafa war a conseiller les collectivités territoriales. dans les normes dama war a nekk conseil culturel maire wu Thiès. ak yeneen maires yi fi nekk yëpp am na ay maires yoo xam ni ñu ngi liggéey pas plus tard que hier. nekkoon naag euh, docteur jiite bu maire euh, Thiès Ouest ñuy échanger si ay affaires yu mu bëgg a def am na si ay maire yoo xam ne ku mel ni maire Xombol Magay Bay Magay Boy dañuy liggéey si ay projets yu bëri pas plus tard que semaine bële passe il y a trois semaines dem naa ba Daaru Xudus maire Daaru Xudus wetu Mboro anime foofu benn forum sur l'entrepreneuriat et la formalisation donc am na ay mairie yu bari ñu ngi liggéey ak ñoom mairie Morolan par exemple seen centre socioculturel bi ñu neew foofu ñoo ko inauguré ba pare contribuer ci continue bi bi ñu nekk di piloter donc loolu dafa waroon nekk li mais ñoom aussi en tant que institution am nañu seen droit ñu ne man damay dem ci Babacar Ndaw mooy nekk sama conseil culturel te Babacar Ndaw boobu lu tax ñu dem tànn ko am na lu ñu yaakaar ci moom loolu amul benn problème mais ñun ñu ngi fii ci région bi du ma ne ñu ngi fii ci ville bi ñu ngi fii ci région bi et ce sera toujours en plaisir ñu wooñu ci li nga xam ni day avancer loo culture li nga xam ni day développer la culture parce que loolu moo ñu fi teg donc le fait que ñuy nekk fii fële c'est pas une chose extraordinaire parce que ñu la indee fenn pour nga def dara soo fa nekkee loolu waruñu la sax tàccu parce que sa war-war nga def da nga ko war a def parce que loolu moo tax ñu indi la fi